parce que employé employabilité ndaw yi du emploi ndaw yi bokkul employabilité ndaw yi du tey jii lañ ko commencé naa la waxal lii employabilité bi nga xam mooy gune goo daje ci mbedd mi ndax danga ko mën a jël dugal ko léegi ci usine muy liggéey parce que la muy fekk ca usine ba mënu ko liggéey bu usine juddoo fii Sénégal téeméeri emploi yoo ne ñu ngi nii ci taabal bi da wër réew mi doo ko am ku joo mën a dugal parce que usine boo fay liggéey du jàggin am nga doole am nga am nga jàng nga école rek mën nga fay liggéey usine dafay laajte man moom boo xam ne mënoo ko am boo ko jàng Sénégal boo jëlee téeméeri ndaw yu taxaw ne liggéey la ñu juróom-ñaar fukki ak juróom-ñaar na ma yàlla baal à part seen doole. mënuñ def daal ba ko gouvernement bi attaqué depuis 2013 2014 xaaruñ conférence bi pour attaqué ci naka 3FPT bi ngay dégg nii lan doon ci li nga xam ne ci entreprise yi lañ koy jëlee. Mhm. doo ko daan dégg xamoo ko. kenn xamu ko woon fii daanaka Sénégal président dafa ne dërëm buñ encaissé ci entreprise pour dugal ko ci njàngaleem liggéey dañ ko jox 3FPT gouvernement daf dina jël ay taxes ak ñeneen yeneen mmh. lépp ñu jox ko 3FPT pour xale yi nga xam ne tey dégg naa leen bàkki dem ñu ne ñoom jox nañ bon de travail mille xale yoo xam ne yi dem nañ leen jàngal leen liggéey ñuy liggéey tey

soo demee ci département bu ne département ci ñaar école de formation professionnelle yoo xam dina yore téeméeri xale bi ñaar téeméeri xale suma département am na ci ñaar département boo dugg Sénégal am na mhm. centre de formation professionnelle professionnelle laa waxuma technique boo yëree quarante sept département quarante cinq département puis ñaari département yoo xam ñaar mooy formation bi nga xam ne daay fekk xale yi fi ñu dëkk formel avant président ne fi amutoon ay centre de formation technique moo fi amoon et professionnel